jot rek daal di ànd ak yéen ci seen euh, réveil euh, saa su ne du lundi au vendredi ñu leen di andi li nga xamante ni euh, tàmm ngeen ko mooy di wàllum li nga xam ne jëm na ci wàllum actualité dañ koy doore waaye itam topp ci li jëm ci waxtaan bu yaatu bu ñuy amal saa ak ay sujets yoo xamante ni dina leen soxal yéen ñi di fidèle téléspectateur de la 2STV tey nag dañ fa yéene waxe waxtaanee ñaari mbir situation handicap yi nga xamante ñoo féete fii ci biir Sénégal rawatina benn cas bu spécifique bu xew tout récemment dinañ ci ànd ak suñu gan tout à l'heure ñu gën ko yaatal ngeen xam ci lan lay euh, doon weesoo loolu ñu waxtaanee itam li nga xam ne moo jëm ci wàllum euh, lépp luy euh, wàllum dérive ci yenn série yi ñuy gis ndax visionné nañ benn vidéo boo xam ni ça fait quand même le tour de de de de l'internet gis nañ la ci xew ay sénégalaises ak sénégalais yoo xamante ni ñooy tenir non seulement yenn scène yoo xamante xamante ni assez ci yenn pièces théâtrales yi waaye itam kàddu yi nga xamante ni euh, ba tey rek ñi ngi seetlu ni euh, malgré combat yi nga xam ni euh, yenn ci ay association organisation ñu ngi koy mënee contre yooyu la mbir ba tey ñu ngi koy continuer di def ci kanam nañ ci ànd ak imam ababa Ababacar Ndiaye nekk suñu invité ci deuxième partie bi dañ leen di indil xibaar yi ci gàttal nga xam ni dañ ko fa yéenee rek Euh, dooree ak li xew ci week-end bi fële euh, ca euh, booru nootoguy jama nga xamante ni ab fu ñuy defare rek exploité wàllum gaz moom moo daal di Euh, tàkk euh, ba jamono ji sax ñu ngi ñuy wax ni mbir mi euh, des na ba tey ndax en tout cas yu bëri woon na loolu li ci gën a doy moo di amul benn yoon bu secouriste yi mënee maîtriser boobule lakk gannaaw bu mu toogee ay heure di lakk ba jamono ji sax donte xawoon nañ ko wàññi maîtriser ko waaye dafa mel ni daal mu ngi continuer ba tey jii population bi sax jamono ji ñi ngi daw foofee nga xamante ne moo féetee ci Euh, mbir moom ca fi mbir mi xewee ndax rek ragal ñu loru ci euh, mu nekk loo xamante ni lu doy waar la euh, dinañ ci ànd ak suñu ay expert fileek suba ngir daal di ci gën a indi waxtaan bu gën a yaatu ndax norme sécuritaire yi respecté nañ ko am déet bu weesoo loolu ñu daal di ñëw ci kàddu yi nga xamante ni moom moo di docteur Abdoulaye Bousso bi xam ne rek nga ni Sénégal bu ñu rek sukkandiku wala bokk bokk uh, wóolu vaccin yi nga xamante ni moom lañ fa yéene indi uh, vacciné wu uh, du ñu gaaw a tàggali tàggalikook lii di Covid 19 moom yi nga xamante ni moom moo di directeur bu CROUS di centre CROUS centre des opérations d'urgence sanitaire moom moo daal di rek euh, tenir euh, yooyu les kàddu ca euh, rajo Sud FM di wax rek ni vaccin anti Covid bi il faut que ñu daal di koy rek jëfandikoo bis bu ñëwee bu dul lool mën nañ on peut s'attendre à une troisième voire quatrième vague de Covid 19 ici. au Sénégal ñuy daal di xool yi beneen xibaar mu di ki nga xamante ni moo nekk champion d'Afrique mu conservé encore euh, titre am moom mi nga xamante ni moom moo di euh, bien sûr moo nekkoon euh, champion d'Afrique bu judo moom ci week-end bi la ñu daal di xamle rek ni Manick Ndiaye daal di nay conservé li nga xamante ni moom moo di titre am ci champion euh, d'Afrique de plus de cent kilogrammes samedi la daal di am euh, boobulee nga ñaay ci finalu catégorie euh, double champion d'Afrique en titre poids lourd sénégalais nekk tête de file bu délégation sénégalaise des champions d'Afrique des championnats d'Afrique organisés fële ca Madagascar ca Tanarive bu ñu jógee foofu ñëw ci euh, wàllum Covid 19 évolution bi comme ni ñu leen di def xale point du jour bi euh, bés bu jot Sénégal démb li mu enregistré ci ay cas bu ñu ko xaymawee mi ngi toll ci. 88 gannaaw ba ñu defee 1356 tests ñi ci eh, nekk ay kaa importé benn la ñi nga xam ni wàll nañ leen te xamuñu fu ñu ko jëlee tollu ci eh, juróom fukk ak juróom ñett ci ay cas ñi nga xam ne ay cas contact lañ nekk ci toll si ñaar fukk ak juróom ñeent ñi nga xam ni ñoo si ñàkk seen bakken démb toll ci ñeenti doomu aadama ñi si nag eh, wér toll si ñaar fukk ak juróom ñeent donc nañ jàpp ne jamono ji ñi nekk ci lalu hôpitaux yi mi ngi toll ci 870 patients 17 758 la ñu enregistré depuis le 2 mars ba euh, waxtu wi ñi ci wér nag euh, toll ci mille vingt 16 522 guéris 365 décès la ñu enregistré ci jamono ji ñu wax ki yéen depuis bi fi mbas mi euh, duggee ak léegi loolu moo nekkoon xayma bi fii ci biir réew mi taux de guérison bi euh, mel na ni mi ngi wàcc ndax ñi ngi woon ci ay vingt 96 ñi ngi wàcc ba 93 téeméer boo jël juróom euh, juróom-ñeent fukki yi ak ñett ak lu toftal tuuti daal dinañ am wér nañ voilà ci ñi nga xam ni ñoom ñoo ci feebar ci àdduna bi yëpp bu ñu doon xayma ñi nga xam ni ñoom ñoo am euh, virus bi ñu ngi toll ci 77 millions 485 mille 763 euh, patients 13 672 patients ñoom ñoo daal di euh, yokku ci au cours des dernières heures ñi ci daal di wér toll ci 51 millions 54 millions 144 mille 627 patients ñi si ñàkk seen bakken ëpp 1 million 700 mille ci ay patients ñi nga xam ni ñoo nekk jamono ji su traitement ëpp 21 millions euh, cent mille patients nombre de tests yi ñuy def toll ci 1 milliard 152 millions 834 mille 153 tests réalisés au niveau mondial téeméer bu am ci feebar bi rekk juróom benn fukki ak juróom-ñeent daal nañu wér loolu la Euh, chiffres yi xamle loolu moo nekkoon point du jour lié à l'évolution du coronavirus ici au Sénégal et à l'extérieur au niveau mondial ñu daal di xool yi tey journaux yi lan la ñu xëyee ci wàllum xibaar dooree ko ak lii quotidien mi ñëw si kii di directeur directrice générale de la santé mi dalal xelu euh, sénégalais yi di wax rek ni amul lu ñu war a tiit ndax Covid 19 bi ñu ngi koy euh, contrôler ñu ngi ko maitriser fii ci biir Sénégal loolee la docteur Marie Xemes Ngom wax gannaaw ba ñu amee 141 sur 381 lits euh, yoo xamante ni ñi ko occupé euh, ñi ngi toll ci 45 euh, virgule 80 pour cent waral ñu ne ñu ngi koy contrôler fii ci biir réew mi. ñu jóge ci lii quotidien daal di dem ci le quotidien yéenekaay bi ñëw ci lakk boobu nga xam ne mi ngi xewee fële sa dëkk bi ñu woowee nga jaga donc foofu la lakk bu méttee métti amee ci puits de gaz boo xamante ni ba mu tàkkee en tout cas lu bëri bëri bëri ci ay waxtu topp na ko di ko tàkk te amul benn yoon bu ñu ko mën a maîtriser tax ñu samp ab laaj ci moyens yi nga xamante ni moom la Sénégal am ngir mën a maîtriser ay lakk waaye waaye itam ay spécialistes étrangers ñoom euh, sonnoon nañ loolu ngir mën a euh, maîtriser lu ni mel gannaaw bañ leen woowee ngir ñu mën ñëw wàllu si euh, dëkk boobee itam kii di ancien directeur bu des mines moom it wax na ni à toute chose malheur est utile malheur est bon donc mel ni fii mën nañ fi jaaree ngir gën a xoolaat suñu ay jumtukaay ak naka lañu war a comporter woo face à ce genre de situation kii di nguur Ibra Fall Kane nekk euh, koo xam ni xam-xamam dafa màcc ci wàllum euh, finance nee na juridiquement euh, kii di njiitum réew mi di président Macky Sall am na droit solicité ñaareelu mandat bu juróomi at loolee kii di Ngouda Fall xamle di wax rek addu ci coowal troisième mandat bi nga xam ni ñii ne nañu war na mën a am ñii ne mënul am Walf Quotidien ñëw ci njiitalu conseil économique social et environnemental bi ñu tabb bu yàggul dara di Idrissa Seck jamono ji nag nee nañ kenn tegu ko bët ana fan la nekk euh, ba leen tijjee bii bi di Walf Quotidien di ngeen ci am lu leen leer en tout cas li yéew yéenikaay bi xamle moo di jamono ji ki yokku nga xamante ni moo di Idrissa Seck kenn xamul euh, fan la nekk il est porté disparu Vox Populi daal di ñëw ci lakk boobu am fële ca euh, daal di rek transformé foofu nga xamante ni mooy fa mu nekkoon def ko en tout cas ci situation bu doy waar lool gannaaw bi lakk bi yàggee tamit yi euh, loolee le Vox Populi euh, xamle ci xëtam bu njëkk ñu jóge ci Vox Populi xool Tribune Quotidien ñëw ci vaccin anti Covid bi di wax ni Sénégal moom bëggul doon kobaayu kenn gannaaw ba ñu nee euh, vaccin bi mi ngi waaj a ñëw ak lépp liñ ci wax en tout cas mel na ni Sénégalais yi moom jamono ji tiitaange lañ gën a am ci vaccin boobu que di ci am rek euh, ab loo xam ni yaakaar nañ ni bu ñëwee ñu daal di ci am wér loolee le Tribune euh, Quotidien xamle anam boobu nga xam ni vaccin bi. bu fi duggee sénégalais yi noonu lañ ko fa fas ak accueillir le soleil yéenekaay ñëw ci commuté de pilotage bu jaloog national kii ko jiitee di Famara Ibrahima Sagna eh, daal di nay def le point eh, maanaam indi bilan bi wax lan moo tukkee ci boobule dialogue lépp a ngi ci biir le soleil quotidien mi annoncé itam ni ni ki démb kii di docteur eh, ni ki suba kii di docteur rawul professeur bi fas yéene na wax lu jëm bien sûr ci lépp lu jëm ci Covid bi ak euh, en tout cas li soxal àdduna bi ci lu bëree bëri ci boobu la yéenekaay l'observateur ñëw ci lu doy waar mu di réew mii di réewum Sénégal i koy yoot ni li koy yoot euh, di euh, wàllum xiif loolee la yéenikaay bi xamle gannaaw bu mu amee entretien ak kii di Jean-Pierre Senghor nekk secretaire exécutif du conseil national de sécurité alimentaire muy wax ni ci eh, ñeent fukki département ak juróom bu ñu xoolee quinze yi rek ñoom ñoo nekk en phase ci euh, sous pression et un en crise loolee moo di ay chiffres ak yeneen yu doy waar yoo xamante ni bu ñu ko xaymaa daal fii ci biir réew mi euh, li yot Sénégal moo di wàllum Euh, xiif ñu naan ko euh, famine bu jógee bu ñu jógee ci l'observateur xool libération yéenikaay mi ñëw ci euh, jouet yooyu nga xam ni dafa amoon ay alcool te xale yi doon ko jëfandikoo ki doon jaay yooyu le mbir la ñu daal di rek andi ay euh, li nga xam ni moo di résultat première enquête yi ak it kàddu yu mu yëkkati ca kanamu enquêteurs yi di wax rek ni produit bi bu muy dugg biir Sénégal amul woon benn document loolu la daal di wax policiers yi di wax que ni jot na itam euh, am 50 cartons yoo xamante ni li mu ci fay moo di vingt 22000 francs CFA carton bu ci nekk te carton bu nekk amoon na 600 blocs. ci yooyu les jouets te fournisseur bi mi ngi fële ca Guinée Bissau dafa amoon abitude rek di ko jox yooyu les produits di ko jaarale fële ca Gambie indi na yu am solo ci ay détails ak leeral ci anam boobu nga xamante ni noonu la produit yooyu alcoolisé yi dugg biir Sénégal te moom jàpp na ni mosu ko woon xam ni noonu la demee. critique quotidien daal di ñëw ci wàllum Covid 19 ak anam bi nga xamante ni rek euh, mesures yi am na ñu ko respecté wul benn ci brioche dorée mu ñu gis ne day jaay ba 2 heures du matin te dañoo tere woon lu ni mel mu mel ni daal am na ñu nga xam ni ñi ngi ci biir réew mi waaye li yoon tëral tënk wuñ ci loolee la critique quotidien xam ne gannaaw euh, critique quotidien ñu daal di dem yi euh, beneen yéenikaay mu di suñu làmb ñu jeexalee ko foofu euh, suñu làmb ñëw ci li ñuy annoncé di démarrage activité sportive yi mu ne est-ce que lii di lutte di làmb mun nañ ko def ak wi en huis clos à huis clos maanaam benn mbooloo bañ ci am benn public bañ a teew laaj boobu la suñu làmb samp du ñàkk amateur de lutte yi ak ñëpp ñu ci yëngu daal di ci mën euh, addu loolu moo nekkoon li gën a fës tey jii si lundi bi 21 euh, décembre 2020 euh, di nekkoon revue des titres ak li ñu indiloon ci xibaar sans plus ñu dem xool yi archive li nga xamante ni moo di rétrospective du jour daal di dellu si waat léegi tàmbali waxtaan bi voilà mu nekkoon euh, la rétrospective du jour euh, démb ñu doon euh, célébrer li nga xamante ni moom mooy commémoration bu décès bu sengor gannaaw bu mu génnee àdduna en 2002 voilà ci voilà en 20 décembre démb lañ doon ko rek fàttaliku moom moomu di sengor tout à l'heure maa ngi leen doon annoncé. Euh, que ni dañ ci fas yéene dalal euh, kenn ci association bu euh, ëmb waaye laago yi féetee fële ca Pikine di seen chargé des revendication bu voilà Sud 3D bu Dakar Dem Dikk en même temps nekk agent commercial ci boobule kër ñu koy woowee Jibi Diallo Jibi ja ñu ngi lay dalal ci plateau bi di la nuyu. ñoo ngi lay nuyu di rafetlu trop di kontaan am kontaan trop sa émission bi nga xam ne ci invité yi. da ngeen am ay euh, soucis euh, tout récemment euh, ngeen génnoon di plaidel koo xamante ni xale bu jigéen la du ma ne sax xale bu jigéen mais en tout cas jigéen la bokk ci yéen am jafe-jafe boo xamante ni ñu ci bëri gis nañ di xew à travers boobule mbir fa ngeen dem ak fa ngeen jugee hôpital bi hôpital bi ngeen jugee ba hmm. daal di dal feneen péripétie boobu yëpp est-ce que mën nga dellu si waat ci li nga xamante ni moom moo xew Sonas ñoo lay nuyu kenn di nuyu di am ngootaati trop ci émission bi nga xam ne invité nañ ci euh, nekk ci association ànd bu Pikine Jibi di waxee ci turu président Cheikh Ndiaye ak euh, ak Abdou Koñe Diop bi nga xam ci tey ñoom ñoo ma yebal fii. Mm. ma nekk seen chargé de communication fas yéene ñoo wax ci li nga xam ne mooy euh, mbir mi nga xam ne moom la dal ci kër waaye laa bay soxna si soxna joor Diaw la soxna joor jaw moom da doon sangu bi muy sangu foofu ci la daanu bi muy daanu ci la daanu mu damm. bu ndax bassin bi am ñu dem hôpital du Thiaroye parce que Pikine Thiaroye la gën a dendeel mhm. euh, bi mu ñëwee foofu hôpital Thiaroye parce que moom mi ngi woon a carte égalité des que aussi tamit yàlla dimbali euh, nga xam ne mooy couverture maladie universelle aussi mu jëloon na ko en charge bi ñëwee foofu hôpital Thiaroye naa da ci mënul dara bi mu ci mënul dara ci nañu yóbboo CTO mais problème bi ñu am ñoo ngi ko amee ak CTO parce que bi mu ñëwee foofu dañ ko laaj cinq cent soixante dix mille ba ñu ko laal toog na fa ñaari fan ñu doog ko laal ci ndimbalu suñu borom ci ci la le président Cheikh Ndiaye contacté ki ne si mooy sous préfet euh, Djibi Diallo Djibi Diallo muy euh, jagdoor di ko gërëm di ko sant parce que bu dul moom tey jii amaanaa loolu tey ji mbir mi duñ ko jël en charge côté boobu mu nekk problème bi nga xam si waaye laa koy dañuy am jafe-jafe yu mel noonu. avant ngeen di contacter Djibi Diallo da ngeen ministre bi wala agent yi nga xamante ni ñu ngi foofu. wala jot ngeen contacter ñeneen. waaw jot nañ contacter ñeneen parce que ki nga xam si aussi tamit mooy le ministre Diouf Sarr yàlla def na aussi tamit daan nañu am ak moom yenn relation waaye aussi pour jot ko fexe nañ def nañ lu tout pour jot ko mais koo gis fenn mënuñu ko am franchement mais soxna même bu dul loolu waaye laa rek moo xamul la waaye laa ko rek mais doomu aadama rek bu ñëwee nekk si jafe-jafe rek bala ñoo mën a contacter keneen hôpital bi si pour man moo ko war a jël en ba pare bala ñu wax dara na ko jël en charge xool ko ba pare ñu doog a wax leen yow jublu ci mbirum pajam ba xam loo xam day dund ak déet je pense que loolu mu ëppoon solo parce que bi ñu jaaxle ba jaaxle xamuñu kenn ko parce que aussi tamit ñun yàlla def kenn ku ne woone muy ministre de la woo nañ leen leen am ci lañ ci juste Cheikh Ndiaye contacté le sous-préfet xalaat ko waxtaan ak moom parce que aussi li ñu naroon def mooy dañoo naroon def sitting dem si buntu hôpital bi taxaw fa séddoo ko foofu taxaw def fa def fa suñu sitting wax fa lañ fa war a wax def fa lañ fa war a def yàlla def na aussi tamit bi ñu ko président Cheikh Ndiaye contacté mu ne bu leen ko def le sous-préfet ko gërëm ko sant mu bu leen ko def ñëw la ñu toog ñu waxtaan bi ñëwee toog waxtaan mu ni moom aussi tamit lii muy def nii def ko pour dara waay da ko def aussi li nga xam si tey jii mooy tant que doomu aadama en tant que per de famille loolu moo tax moom mu jóg jàppale ñu ci loolu dem defal fajal ñu ndaw soosu dem joxal ñu caution boobu loolu ñu yoo xam moom ñu doon laaj. kaala waaw souvent mën nañu dañuy dañuy dañuy dañuy dañuy jànkontoo ak cas yu mel noonu. bari na fi dama koy dim maa ngi doon waxtaan ak euh, sunu frère Yoro Niang ko wax dem daan ko ñun joor moo feeñ mais am na ay waay laa ko yoo xam si ñoo ngi toog bu ñu feebaree ñu faju bu ñu demee fen dañu ñàkkal fayda bu ñu demee fenn dañu leen minimiser bi dafa ëpp yu mel noonu dafa jot ne ñu jóg ci pas de jour dañ cee jóg pour fas yéene ko faje suñu bopp parce que aussi tamit mënuñu le président de la République mënuñu def carte égalité des chances carte égalité des chances indi ko personne waaye laago yi bi ñu génne jox ko waaye laago yi rien que pour bu ñu demee fenn ñu yombalal ñu mbiri mais yaakaar nañ ñun même ko amee yaakaar nañ aussi tamit ba léegi lañ ca war a def ñoom kenn def ko ci dem na ci côté emploi bi ci côté foo mën di dem personne e pour ñu gis ci boppam problème lay doon ñun aussi tamit dañuy jël ay ministres ay conseil am na ko ñoo xam ci dañuy ay waaye laa nañ mais ñooñu dama jàpp man ñooñu seen bopp nañ fi nekkal parce que tey jii ñooñu tey bu fekkee ñun bu problème amee ñooñu bu ñu leen njëkkee woo so duñu leen jot ñun wala aussi amuñu lenn benn yoon boo xam ne mën nañoo faa teg wala mën nañoo waxal suñu problème kon yaakaar naa ne loolu kon ñun amul sens gisoo leen seen bopp daal ci ñi nga xamante ni ñoom ñoo ñoo tax ñu yéen yéen a tax ñoom ñu teg leen ñu nekk fii ñu gis ñu seen bopp dañuy am ay jafe-jafe tout temps loolu aussi tamit day baax aussi tamit léegi nag ñun aussi bëgguñu tout temps parce que boo waxee ñun da ngay politique boo waxee ñun da ngaa farfe wala da nga fa non du lu mbirum farparloo mbirum waaye dafa nekk loo xam ne gisa bu la dal mënoo koo xam nit ki la koy metti moom rek moo mën a yëg la koy metti mu njëkk jafe-jafe boo xam ne si aussi tamit bari na ci dëkk bi loo xam ne si aussi tamit day baax aussi tamit ñuy dénoncer li nga xam ne si moom wala ngay dem fenn yow tey boo nekkee waaye amul sax duñ ñëw jël sax ni leen fii pour yéen la wala toog leen nii wala yombalal la ko ba nga xam si yow tey yow ba ñëwee yaay njëkk man man rek xuloo naa ci benn banque da ngay dem dugg ba ñëwee dañ lay bëgg a rangloo parce que mënoo taxaw yéen taxaw ñu yéen taxaw yi nga taxaw ko bëgg la rangloo bëgg la fekk day dama yooyu mënuñu ko sax wax seen employé loolu aussi tamit ñun boobaa aussi tamit lan la lay jariñ bi ci des bi si côté emploi côté emploi da ngay dem si yenn société yi boo bindee demande bu ñu xamee ne waaye laa ko nga moom da ngay xaar yooyu ay jafe-jafe la yoo xam ne si ba léegi dépassé guñ ko que souvent ñu bëri ñoo xam ñoom nañu yàlla daf ñu ñu am euh, ndomba tànk di wax bu ñu wax day mel ni mbir mi dafa faju comme mbir mi fajuwut soxna si loolu moo fi loolu mooy problème malgré seen CV nu muy euh, nuñ ko mën a méngalee ak ñi nga xam ne ñu ay waay laago et tout ça mhm. ay CV yu baax ngeen di am mhm. vous répondez parfois critères yi nga xam ne moom lañ soxla mhm. mais euh, handicap bi mooy nekk frein bi mooy nekk seen problème xam nga problème fan la <laughs> xam nga dëkk moom ni muy doxee moom léegi moom da ngay mooy lool bu nekkee ngi baal ma ci wax bi da ngay nekk <laughs> jong moom ci rafet wala nekk benn gentleman yaa ngi mais bu ñëwee ba gis say beek yi gis say kii découragé nañ loolu fu mu tegu loolu nag nekkul mbiru président de république mais aussi tamit dafa nekk loo xam ne ci mbiru la jikko ngi dégg di profité di nuyuwaale ki nga xam ne si mooy suñu secrétaire général Madio Xor nga parce que day xeex si yu mel noonu parce que tey ngay am sax gis parce que ñun journée mondiale des personnes handicapées bi ñu ko yàggul président de république génn na wax ci bi mu ci génnee wax am na am na loo léegi mënul faju parce que day am ay jafe-jafe yoo xam day ñëw dem jox ko ko mais bu ñu ko joxee après bu ëllëgee dañuy xaar benn journée encore ñu doog cee waxat mu nekk loo xam si aussi tamit yooyu dafay war a jóg dafa war a jóg injustice la yoo xam si aussi tamit ñun ñi nag jàpp nañu ñun nag léegi ñun ko war a faje suñu bopp dañ ko war bopp du ay menace mais dañoo war a jóg aussi tamit dénoncer li nga xam si aussi tamit état bi au moins da koy def mais ki nga xam si aussi tamit day dañ koy dénk kuréel dénk ko entreprise wala dénk ko dara bu handicapé ñëwee xoolee woo ko bët xoolee woo ko bëti doomu aadama la mais yaa ngi xoolee ni kii nii la mel wala bu ñëwee kii c'est pas accueillant mais quand même am na lu ñu leen di jàppale loo xamante ni ñu ngi leen di accompagner si ñi nga xamante ni euh, ñi ngi bëgg entreprendre wala ñoo xamante ni ñi ngi bëgg a demal seen bopp am ngeen ay accompagnement yoo xam ni souvent état bi ñu la dimbalee non accompagnement yi yooyu dëkku dégg rek am na yoo xam ne aussi dinañ bàyyi théorie bi ñun dañoo bëgg luy jëf jëf joo xam si day feeñ jëf joo xam day feeñ yaa ngi dégg ñun tey ji personne handicapé yi ñenn yi carte d'identité nañ am yoo xam si tey jii ñu leen jàppale tey jii ay ay vingt cinq mille la par deux mois trois yooyu ñoo xam ci ne yooyu kala mën a té ko joxee lekk ko nañu ñoo xam ne tey jii mënuñu ko projet yooyu tey jii dafa am solo accompagner les yooyu yaakaar naa tey jii nekk na li nga xam si tey jii waaye laa koy tey dootuñu wax waxi yelwal tey exemple tey mën tey kër gi nga xam si tey man fa laa nekk tey jii Dakar Dem Dikk ñaata ay per ñaata handicapé la jël ñuy liggéey ñaata handicapé yi ñu liggéey tey tey UCTM ne kër gu ne bu ko defoon tey yaakaar naa tey jii mbirum waay laago koy waxati ba léegi ñu fi dëkk. mais fan ngeen gis ne gis ni foofu dañ leen fa beddi doo leen fa gis ay handicapé souvent. non bari na bari na bari na am na entreprise yoo xam tey jii bu ñu ko limoon tey jii bari na ay boo ñëw tey am na amaanaa sax doo fekk handicapé mais am na ay entreprise yoo xam ne boo demee da fekk ay yoo xam ne ñoom ña nga fay daal seen doole ay ADE boo demee ay euh, agence euh, euh, comment dirais je emploi des jeunes dans la emploi des jeunes boo demee da fekk ay ay ay handicapé nga dem Dakar dem dikk boo fi ñëwee da fekk ay handicapé yaa ngi dégg mais aussi tamit mais waxuñu la yem si liggéey bi rek mais dañoo mën liggéey bi soxna si handicapé boo jox liggéey dafa man la muy def par na handicapé xon tey boo leen joxoon tey jom jën ci am tey jii def liggéey jàpp liggéey ba day nekk loo xam ne si tey ji lu am solo la boo xam tey ji bu ëllëgee bu ko ñu ñu xamoon tey ji dinañ jël ay entreprise entreprise nii ñoom it nañ recruter ay handicapés téye leen seen biir bërëb mm-hmm. ñu lay jaajëfal bu baax euh, Djiby Dia di la bàyyi nga tàggoo waaw li may tàggoo rek euh, mooy di di di wax ni aussi tamit nañu président gën a jàppale li ñu président de la République moom lañuy lancé appel mu gën ñu jàppale wax kër kër yooyu nga xam te ji ay Dakar dem dikk ay ay ay ay ay ay ay day ah, agence yoo xam ne mi ngi joxe ay instructions xëy na ñi ko war a waaw ñi ko a jëfee ñoo ko jëfewul mu nekk jëfe boo xam ne si tey jii parce que tey jii man li nga xam ne man falaa loolu laa mën a wax tey jii mooy kër gi nga xam ne si falaa falaa gën a nekk di di profité le secrétaire général ma jox xor mbeng comme aussi tamit li nga xam si moom man man man miy waxee yow agent agent la nekk agent commercial maa ngi Dakar di fa liggéey def naa receveur nekk fa tey ñoo nekk agent commercial aussi tamit tey yi moom moom dañuy jël handicapé yi di leen jàppale nekk loo xam si aussi tamit na président tey yi gën a jàppale këru Dakar Dem Dikk exemple bu ko jàppalee ñaata handicapé ñoo fa mën a liggéey bu ko defee tey jii je pense que comme li nga xam noonu moom tey jii maanaam loolu président de la di wax na nekk loo xam ne si aussi tamit ñii dañ koy jëfee ku ko jëfewul aussi tamit mu mu mu mu jëlee la fa. Mhm. teg fa keneen koo xam si dina a dimbali waaye laa koy. ñu baax a baax mu nekkoon euh, Djibi Dieng nekk euh, ci association handicap euh, yi nga xam ne handicapé yi féete fële ca Pikine mm-hmm. euh, ñu doon waxtaanee seen situation euh, ci jamono ji fi mu toll ñu lay jaajëfal bu baax mm-hmm. di daal di soobu ci deuxième partie bi laata loolu ñu xooli benn page publicitaire dalal fi imam Khalifa Ababacar Ndiaye ñu daal di soobu ci deuxième partie bu matin bonheur dalal fi imam xalifa Ababacar Ndiaye ñu ngi lay nuyu di la dalal imam masque bi yaakaar naa ne mën na deñ waaw comme ni ñu ko sàkkoo salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu ngi lay nuyu eh, di nuyu àdduna bi yëpp di nuyu tamit njiital kër bi di mm. nuyu waale eh, suñu njaboot ñuy soxna ak suñuy wayjur yi nga xamante ni ñu ngi ñuy seetal di la wax Imaam tey euh, dañ fa yéene waxtaanee ay ponk yu am solo mais bi ñuy dooree mooy li nga xam ne moo di euh, série télévisée yi ñuy gis euh, am na ci yoo xam ne mi ngi daw ci télé bi am na yoo xamante ni naam dawul ci télé bi mais fañ koy def sax boo xool. booy xool moo gën a am audience mu di ci internet bi visual visionné nañ ci yu bëree bëri yu nga xamante ni souvent ñi ciy faral di àddu ñu koy gis yu bëree bëri mooy Jamra Euh, mais tey soxla woon nañ xam euh, yéen seen taxawaay en tant que balaa sax may ñëw ci beneen euh, pàcc bi nga xamante ni wala beneen taxawaay bi nga taxawee en tant que imam mais en tant que imam série yi nga xamante ni mi ngi daw ci tele bi ngeen koy gis yéen naka ngeen ko gisee série yi dans le cadre général. waaw soxna si jërëjëf boo posé question ni yéen seen taxawaay yéen ñooñu dafa dajale ñu bëri bëri dama bëgg nga leeral ci ban cadre la ñuy waxee ndax. ñun imam yi la mm-hmm. wala man imaam wala boog jamra ak ni mu toll yëpp imaam waaw en tant que imaam mm-hmm. mën naa ci wax bu dee nag ñun imaam yi yoruma kàddu imaam yi euh, ba ci ñëw di wax mais imaam yëpp du ñu benn wala waaw maa ngi ñëw euh, dafa am doxalin imaam yëpp benn lañ yaa may déggam mm-hmm. imaam yëpp benn lañ mais dafa am lu dox ci diggante bi muy association des imams Euh, mu tënku ci ñaar booy seet Sénégal am na fi ñaari groupe yoo xamante ni eh, benn association bu ci nekk am nga koo xamante ni peut-être mooy sa port parole moo war a jóg pour waxal la wala boog li ngeen daje ba nas ko kooku moo war a jóg pour wax ko ñun nag bokk nañ ci eh, ligue des imams maanaam association des imams et oulémas du Sénégal bi nga xamante ni eh, suñu bàyyi suñu wayjur alxaji Moustapha Guèye moom moo ko jiite kooku nag ñëwuñu en tant que li ñoo tuddee euh, seen porte parole waaye dañu ñëw en tant que nekk ci biir am responsabilité moo ñu war du ñu war boo xamante ni war nañ ci mën a wax beneen bi ci des ñu ñëw en tant que sénégalais comme ni nga ko constaté comme ni nga ko seetloo euh, ba invité ma ma war cee wax nit ñi war ci jariñu ci xalaat bi nga xamante ni moom laay génne. Mm. waaw ñu déglu la ci kon. waa liñ may déglu moom série yi moom euh, du ma ni am na yu baax du ma ni yëpp a bon tamit. waaye bu ñu dee natt ci cent séries ñaar nga ci tànn ne mu ngi yeete e, fii ñu toll nii nag dañuy jooy wax dëgg yàlla ñu mel ni ki Cheikh Tidiane Diop ñu mel ni ki suñu jur yàlla yàlla yërëm leen ay ñoom moo xore jege ñu mel ni ki ay ñoom euh, abu abu abu euh, comme ni ñu koy tuddee ti euh, abu daal la tudd mu ngi dëkkoon Grand Dakar Abdourahmane mhm. la suma juumul abu euh, abu merci autant pour mhm. moi ñu ngi jooy ñooñu ak ñi mel ne ñoom tey def lu mel noonu ndax ñoom dañ doon yeete ndax ñoom dañ doon dañ doon yar ndax ñoom dañ doon jubbanti ba su ma fàttali ko Aïcha bu bu aman benn jamono boo xamante ni euh, talaata day jublu si talaata muy mardi ñun ñëpp suñu yitte day nekk ci teel a reer bu ñu reeree ba pare teel a jàkkaarloo télé bi. Mm. bàyyi toog yaay toog frère toog sœur toog ñu seetaan ya nga xamante ni moom la daaroy ko ci daan def seetaan ya nga xamante ni moom la jamonoy tey daan def parce que dafa bokk ci culture te da daan yeete yeete boobu mu daan yeete nag ci nga daan jële lu bëree bëri xam li la war ak fi nga war a dem ak li nga war a def ak li nga war a wax. mais malheureusement jamono jii ñu toll nag jamono ji ji ñu toll euh, da am ñu baax ay film bu ci mel na mbetteel dañ leen di encourager muy Serigne gañ ak euh, ndaw soosu muy àndal yàlla na damay fàtte turam euh, tur yi laay fàtte peut-être dana ma ñëw ci dana ma diggal ci biir émission bi. Mm. mais booy seet ñoom ñu ngi yeete ñu ngi teg li nga xamante ni askan wi mën nañ ci jariñu mais bu dul ñooñu ci ñi ñu seet ci ñu ñu gis ñun. mën naa ne ñi ci des ñëpp la leen taxoon a jóg daanu nañ ci kaw ci côté bi beneen bi ci des li leen tax a jóg du loo xamante ni day yee askan wi li leen tax a jóg du loo xamante ni day defar ruux day defar jikko non dañu jóg pour poño xeetu àdduna. pourtant dañ naan ci suñu ay réalité la bokk donc euh, warul nekk loo xamante ni euh, war nañ koo mën a ŋàññi comme ni ñu koy defee parfois. waaw xam nga xam nga suñu réalité bokk ci sàggane sa bopp bàyyi sa yaram ci bitti bu doon loolu bu ñu sol yëre. suñu suñu réalité dafa bokk ci sàmm sa kàddu contrôler li ngay wax balaa ngay wax li français di wax naan avant de parler il faut tourner la langue mille fois suñu réalité dafa bokk ci loolu bu fekkee ni nag réalité nag dafa jëm ci ne lu baax lu bon yëpp da nga koy dajale ba lu bën lu bon li muur lu baax li mais boobu wàcc nga yoonu li nga xamante ni mooy suñu culture mooy suñu yar mooy suñu éducation Eh, te loolu nag eh, ay sa musiba la boo xamante ni eh, kenn ku nekk nag bu ñu jël rek mbir mi teg ko ci kaw ne Jamra moo war a taxaw. non non laa doon ñëw lan mooy seen rôle parce que bi may commencé wax naa la que tout le temps dañuy dégg nii Jamra moom mooy wax xëy na Jamra ëmb na ay imaam ëmb na yeneen i couche de la société et tout ça mais lan mooy rôle lu imam yi ci mbir mi bu amee. gis nga rôle association bi nga xamante ne dinaa ñëw ci rolu lu gis nga rôle bi jëkkee. bi njëkke mu ngi ci yow mu ngi ci man mu ngi ci ki taxaw ni taxaw di ñu seetaan. mais ku ci nekk amul autorité. non autorité gis nga autorité nit ku nekk fa nga nekk yaay sa autorité bopp. nit ku nekk tey su ma waxee ni rôle bi mu ngi ci yow mu ngi ci man mu ngi ci kii di ma seetaan. mais dafa am ay voix autorisées ba ma bàyyi ma développé rek peut-être dana am loo xamante ni danga ko xam. Mhm. xam nga yow tey àdduna mënul dox mënul mënul neex walla mu naqari wala poñe xiitu àdduna jaral la ñu summi la na la sa ndey jure woon yow Aïcha. solal la nuisette boo xamante ni sa awra yëpp ngi ci bitti nga tëdd ci kaw lal un deuxièmement nga teg ci ne yow boroom jëkkër nga maa nga teg ci ne say doom yaa ngi leen tëral benn mur moo dox sa diggante sa néegu doom nga taxaw jël téléphone koo xamante ni du sa jëkkër sa euh, nu ñu koy tuddee ti la far la nga sañ a taxaw ne ko defal ko defal ko li ñuy tudde xaw ma euh, yooyu ñuy def noonu euh, téléphoné ko ba pare def ko filmu muy génn mu jàkkaarloog yow ni nga mel nga ne ko yow rek laay xaar jëkkër nekku fi maanaam sama jëkkër dafa génn waxoo ne aw ma jëkkër samay doom ñu ngi nelaw yaa ma teree nelaw loolu ki koy def ki koy def nekkatul nit ki koy def ku mu mënti doon nekkatoo nit amoo repère amuloo yar amuloo kilifa léegi nag kooku yow da nga ciy natt sa bopp yow en tant que jigéen. yow sa en tant que jigéen ak kii di ma seetaan natt ci boppam xam ni fa mu jëm amul kër yow danga ko war a xeex parce que li la sa diine sant ak diine bu mu mënti doon mooy boo gisee lu ñaaw lu mu mënti doon nanga nga ko xeex wax ko ci sa gémmiñ yow mi yore micro yow yaay première personne bi nga xamante ni yow lañ njëkk a interpellé bu bu ba paree nag ba nga xamante ni mënta faju nga soog a wuti association yi mel ne Jamra ñoom ñu ñëw en tant que ticket ticket bi nga xamante ni moom la ñu amee ñu soog kaas beneen bi ci des nag fi war a mujje mooy imam bi ñëw boo amul kersa nag sa yaay ji lay seetaan boo amul kersa sa baay ji lay seetaan boo amul kersa sa sœur bi lay seetaan wala yow mi nga xamante ni sa moroomu naw li jigéen dal joo xamante ni mu ngi ci ruq mbaax di baax yow nga bëgg exposer ko lu bon forcer ko ko mais su boobaa nag yoon soog a jëw dal ci sa kaw moo tax léeg-léeg responsabilité yi man damay dégg ñenn ñi di commentaire naan état moo war a jóg état moo war a wax mais état moo war a mujj taxaw pour wax parce que état buy jóg rek caravage mooy jóg sanction mooy jóg kon yar bi ak de ak ni ñuy développé yar mu ngi ci yow mi taxaw mag man ak ki may seetaan ak wayjur wi ci biir kër gi parce que am na loo xamante ni nit ku nekk war nay toog ci ruqum ana man a kan man maay kan ndax fii loo fi def lu mu mënti doon loo fi def ci lu baax day continuer di sax loo fi def ci lu day continuer loola nag nit ku nekk war na ci seet boppam nit ku nekk war na ci xalaat ëllëg ëllëg responsabilité yi conséquences yi fan lay mujj ak nu ko say doom di gisee ëllëg imaginel tey nga dugal lu mel noonu ci YouTube nga wëlbatiku dem ba fii ak cent ans vingt ans quatre quarante quarante quarante ans say sët ak say doom feeñ ñu ne leen seen maam lii la nekke woon lii la doon def te du mos a effacé wu ay ndax loo def ci YouTube rek mu ngi ci biir YouTube def nga ni li xew bët ki démb loolu war nañ ko xool ba pare toog ne tekk mel na comme si rien n'était jigéen ju jóg jigéen ju jóg jàkkaarloo góor gu jóg ñàkk jom ñàkk teggin ñàkk yar ne da ngay dawal benn film boo xam ne moo xam nga koy dugal Facebook moo xam nga koy dugal ci réseaux sociaux yi moo xam nga koy teg ci télé yi wala fu ma tudd yooyu tamit dinaa ci ñëw responsabilité télé yi mais Aïcha nan nga mën di góor am nday am baay am rakk am jabar ami doom futti ko ba ni daa nga dese sorte taxaw boole ñaari jigéen convoqué leen ñu ñëw ci benn néeg nga jël benn jigéen ji tëj ko ci toilet di xaar sa beneen coro sa beneen coro ñëw imposer la forcer la pour nga takk ko nga taxaw ne ko waaw mën naa ko mën naa ko jooju jigéen ji ñàkk jom ñàkk kilifa ñàkk yar taxaw ne la comme que nee nga ma mën nga ko jox nga ma sa parole kaay ñu tëdd ma ak yow mais ana ngor ana étik mais euh, genre seen yooyu su su amee euh, le plus souvent lu ñu koy layalee mooy que ni euh, lu am la ci société bi donc moom la ñuy jéem a véhiculer pour peut-être dénouement bi c'est-à-dire njeexital bi ñu daal di indi loo xamante ni moom mooy indi conséquence bi ngir daal di si jàngale jàngale li nga xamante ni moom moo di leçon foofu noonu est-ce que d'accord nga ci boobu la. non d'accord ma ci boobu xam nga jàngale dafa am anam. dafa am benn ku jiite ci série yooyu ñuy def ci weeru koor bi weeru koor bu ñëwee série yooyu ñu leen di wax pour xeex l'islam nga xamante ni tey doo tala ndogu ndogu go réglé doo taru uuf say njaboot série yooyu bu jotee li ngay bëgg a def mooy seetaan série yooyu rey ci sa bopp ma ne ko yéen série yi da ngeen koy def ngir yàlla wala lan parce que ngir yee ngir yee sénégalais yi mais mais jarul dem ci télé wala réseau sociaux fexeel ba yow environnement bi nga dëkk yow en tant que ngañ ngañ mii théâtre nga fexe environnement boobu nga def ci ñoom loo xamante ni bu ñu génnee ne référence nga ne di dem ayus mais bi ma ko laajee ne ko lan ngeen ci lan moo ci poñe xiit bi nga xamante ni moom ngeen ciy am xam nga lu mu wax série yi léegi léeg nga gis ñu fay trente millions pour weeru koor bi yëpp léeg-léeg nga gis ñu fay plus wala moins léegi 30 million yooyu moo leen intéressé leneen intéressé du yar du éducation parce que kenn du jàngale koor naan dem ba ne ni nit ki boo demee ba woor ba ci digg bi tàngalal sa ceeb wala ceeb bu am xooñ nga koy lekk mais yooyu ayisa ñun xam nañ ni mu demee am na ñu nekk ci seen suuf pour tilimal deru l'islam pour décourager kenn koo xamante ni peut-être amoon na benn ngëm-ngëm boo xamante ni fondement la ci moom nga fexe ba loola nga ñaawal ko doyadal ko jàpp comme weeru koor wala julli wala wala def lu baax nekkul loo xamante ni dañ ko war a jël teg ko ci kaw. mooy lobby yi ñuy wax souvent. Euh, mais lépp ngi ci biir lépp ngi ci biir te ñi ci ëpp di ko def amuñu kilifa. ñi ci ëpp ay góor jigéen lañ nga baal ñi ci ëpp di ko joué amuñu ki kilifa bu dee jigéen ñi li ci intéressé ay giwuñ lañ wala ñu nekk ñoo xamante ni poñu xiitu àdduna muy xaalis beeg yooyu ñu ci ay ak li ñoo tuddee buzz yoo fi dof yooyu moom moo leen intéressé leneen intéressé wu ñu baal ma nag wax ji du neex parce que buy bu tojul du jariñ gis nga li ñuy tuddee buzz. moo tax ñëpp kakkaju ñëpp rakkaaju yaa ngi jaay sa bopp jaay sa bopp bu ñu déguiser la rek parce que am na loo xamante ni boo ko nammee def jël góor tëdd ak moom tourné ak moom jaxasoo moom ci kaw lal te mu wër la ne la kii du sa soxna yow tamit nga ñàkk fayda góor jël la utiliser la ba pare keneen ñëw mu tëj la ci biir douche ngay taxaw di def ay yoo xamante ni mel na comme si da nekk ay Niger waa Nigéria sax jomb nañ loolu donc yi ñuy wax naan bàyyi leen série yi ngeen di seetaan ci ay canal ak ñëw di ko bëgg a suñu doom du benn bon la ak mbon la mbon daal mënul weesu bon ayis jël nañ tànki bon bëgg nañ mbon googu taxaw samp tànkam samp ay ndëgër ci biir euh, suñu réew euh, imposer ko waxuma sax suñu kilifa yi waaye imposer ko suñu njaboot gi nga xamante ni tey jii xale boo ci gis tey xale boo ci gis ayisa sa yaram day daw télé yi sax amatul njariñ li ngeen di def nii daanaka amatul njariñ parce que du ñu ko seetaan seen portable la ñu yore dégg nga léegi slogan bi ñu jël mooy ni ñàkk connexion wóorul. mais foofu dañ koy wax quand même. dans non xam nga xam lu tax mën na euh, ñàkk connexion ñàkk côté côté bi nga xam ni moo di ludique bi cest à euh, li leen di divertir foofu la ñuy bon. entendement bi en tout cas. xam nga lu tax mën na ñàkk connexion wóorul ñoom fi ñu bëgg a jàpp jàpp nañ ko fa xam nañ ne am nañ foofu léegi la leen dese nag mooy. nombre de vie yi ñuy am ci réseau sociaux yi léegi télé yi intéressé tu leen léegi li ngay dugal ci sa biir Facebook wala Instagram ak wala yooyu yeneen ak yeneen loolu nombre xoolal tey jii am na xale yu ngeen invité ñooñu duma duma leen sikkal duma leen wax lu jàmm am na xale yu ngeen invité biig ci guddi. Mhm. ñuy def benn émission ñooñu ñooy ñi gën a siiw ci Instagram ak ay. Facebook ak yooyu ay ñoom Fallou ak ay ñoom Fatou Aïdara la xaw nu ñu ko tuddee ñu baal ma maa ngi bu baax baax. mais gis nga xoolal lan mooy seen lan mooy seen yitte ñoom dañuy génn reetaanloo nit ñi kafloo nit ñi def ko ni nga xamante ni peut-être rafet na mais gis nga bu ñu demee ba ci kanam yàlla na leen yàlla sàmm ci kaw bës boobu ñu amee danañ leen jël utiliser leen ci leneen mais su boobaa maa ngi leen di conseil ñu xam seen bopp parce que xam sa bopp ci jàmm yàlla la bokk. utiliser leen ci leneen lu demee nag. mooy lii xew tey ci ci ci théâtre yi ci film yi di daw. xam nga ni am na loo xamante ni boo ko defee ba pare c'est pas la peine ngay taxawati di génn sa gox waaye nag fañ koy defee nag ak fa ñuy nekk du bokk ak fa ñuy juddoo ak fa ñu yaroo. solution yi yan solution ngay joxe. comme lii am na. Euh, surtout côté parents yi léegi nag bu amee. Mhm. responsabilité parents yi day ñëw parce que li ma gëm mooy l'islam li ma gëm mooy li Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wax kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati yéen ñëpp ay sàmm ngeen te sàmm bu nekk danañ ko laaj ëllëg nam doon sàmmee mais responsabilité parents yi ASC bu dandoo responsabilité autorité yi soog a jóg mooy CNRA xaw ma CNRA ngeen ko tudde xaw ma Babacar Diagne ñu ngi koy interpellé gis nga amul nañ bàyyi film bi muy daw de vingt deux heures ku bëgg dawal sa filmo vingt deux heures demal wuti feneen foo ko dawale beneen bi jiitu nag CNRA mooy responsabilité jiitu tele yi que ça soit El Hadj Ndiaye Youssou Ndour Bougane Gueye Eh, doomu bés benn baas jaan ji et tant gis nga responsabilité kilifa télé yooyu dafa taxaw parce que ñoom tey jii ñoo mënoon a taxaw ne li may wut pour fay samay employé li may wut pour dunde li may wut pour pour pour saxale sama sama sama sama maison bi nga xamante ni mooy maison de presse na doon loo xamante ni ëllëg ku ma ci contrôler ci sama diggante ak sama personnalité ci sama diggante ak sama borom dana nekk loo xamante ni duñ ma duut baaraam duñ ma joxoñ mais imagine imaginel tey télé bu taxaw lu ko neex mu diviser est-ce que ñoom tele boobu di dem di teg li ñuy tuddee euh, infidèle mais est-ce que ñi ñi nga xamante ne xaw ma moroodi la xaw ma nu ñu leen tuddee ñi def seen film yooyu est-ce que ñooñu dañoo yëkkati loolu may leen ko ne leen teg leen ko may ñu leen ko. mais est-ce que imam aussi sénégalais yi bëgguñu genre. Euh, conse bëgguñu di consommer genre yooyu xam nga tout à l'heure yaa koy wax di nga yaa ngi ne am na yenn émission yoo xam duñ ko sax seetaan ce qui veut dire que euh, boo xawee sérieux bu mu ëpp euh, dañ la fay bàyyi boo indee li nga xamante ni contenu la boo xam ni peut-être ñi ngi koy seetaan rek fekk na contenu boobu noonu d'accord ñu bëri d'accord wuñ si est-ce que tamit du sénégalais yi ñoom ñoo bëgg loolu waaw bul ne sénégalais yi yenn quand je dis sénégalais lenn ci sénégalais yi ñoom ñoo taxaw pour ñoom ñoo bëgg loolu ngay wax boo nee sénégalais yi da ngay maas noonu gi wala am na ñoo xamante ni yooyu intéressé wu leen dugg leen am ñoo xamante ni tamit dañ naan ay kilifa lañ wala lu mënti doon moo xam ci côté diine wala lu mënti doon te loolu yow mi koy defee yow Aïssa boo génnee ci fi nga koy defe wala ñu génnee image yi ñoo lay njëkk a woo sa téléphone ah lii nga def de moom naa nga mais yooyu taxu ñu jóg mais li am solo mooy tey bu fekkoon ni 2S ñoo koy teg directeur bi wala soxna directeur bi wala doomam seet ni lii day lor askan wi mu ne lii du jàll ci sama tele waaye waaye kon ña nekk fongolo mi duñ ko seetaan Aïcha am na ñu nekk ca côté Gossas am na ñu nekk ca côté Casamance am na ñu nekk ca côté Waalo amuñu connexion ci liy génn ci seen télé yii la ñuy mën a jël di ko utiliser. mais yi ñi nga xamante ni ñoo yor télé yooyu que ça soit 2S wala TFM wala fu ti doon wala wala Sen TV ñoom ñoo war a taxawaat xoolaat seeni tele lan moo fay jaar leneen li ci des na muy li aju ci réseaux sociaux yi kooku mbirum état la état moo war a xool nan lay organiser mais mais boo demee ay Chine ak yooyu foofu Facebook du fa dox duñ ko fa sax permettre pour mu dem waxuma nag ñu xañ ñu ko waaye la cay njariñ nañ ko jël teg ko ci kanamu nit ñi boo jox ko nit ñi mais en général mais la ca dul njariñ la ca dul njariñ nga baal ma mhm. ñu jël ko teg ko fële gis nga télé yëpp bu ñu man ko woon ni seen série yii di daw du fi tege du fi tege ñoom danañ trouver solution mais yaa ngi wax ni dafa am fu ñuy interdire euh, interdire ay ay Facebook ak yenn réseaux sociaux yi mais en général régime yi def loolu dañ leen di considérer comme des régimes yoo xam ni ay dictateurs lañ euh, si je prends l'exemple de euh, Corée du Nord ak yeneen dëkk yi nga xamante ne dañuy def genre restriction yooyu est-ce que tamit liberté euh, foofu duñu ñu li nga xamante ne moom moo di liberté nit ki citoyen bi am droit surfer et tout ça nga ni ko Facebook du fi am. waaw man li may poser question ñuy jàkkaarloo man waxuma la yow sax mais liberté fan la commencé ak fan la yem liberté doomu aadama fan la commencé ak fan la yem. ndax liberté doomu aadama mu ngi ci détruire doomu aadama comme yow. donc bëgg ñu maa ngi ñëw maa ngi ñëw bu dagg liberté boobu ndax liberté doomu aadama mu ngi détruire doomu aadama yow ndax liberté doomu aadama mu ngi muy détruire nation bi tey askan fi nga xamante ni mooy li ma mën a wax mooy tey jii nga xool ba mu yàgg tey bu dee bu dee bu dee nii garab gooy dagg la tey boo fi jëlee benn semiñ di dagg garab gi fii biir Ndakaaru balaa ngay dóor ñaari semiñ waa eaux et fekk la fa mënate la yóbbu la ah ndax liberté doomu aadama dafa nekk ci yàq environnement bi ndax liberté doomu aadama dafa nekk ci influencé xale yi nga xamante ne ay mineur lañu nañu seet lii xew dañu am ay doom dañu am ay sœur dañu am ay ndey tey ñi fi doon sëgg di xaw yi seen suuturay bitti seen suuturay biir ñi fi doon def lu ñaaw tey ñoom ñëpp te dem barzak kenn nettaleetu leen kenn sax buggul sax di def benn waxtu du leen mais ndax ñi nekk ci réseau sociaux yi dañu bëgg dem ba egg foofu wala boog ñuy fésal mbon ci tele yi ndax dañu bëgg a dem ba egg foofu ak lan lay jariñ lan la lay jox yow loo xamante ni laa yusminu wala yughni min shay du la du la avancé loo du la dalay delloo gannaaw mais lan lay jariñ ka ngay toppandoo mu nekk ci beneen tele wala beneen série boo xamante ni da koy def nga xam ni yow mii la ñooñu di dund ci seen réew bokkut ak li ngay dund fii mais mais yow lan moo ci sa taxawaay ndax liberté dafa nekk rek ni lu la neex wax lu la neex def lu am na loo xamante ni nit a ci war a seet boppam waaw jamra rek mënuñu tëg te fuñ toll ñu ne jamra jamra jamra woo imaam xam nañ ko tuddee imaam Maxtaar Gueye fu nekk muy wax gis nga loolu te bu waxee ñenn jël xeer sànni ko wax ko sikkal ko teg ko fu mu nekkul mais jamra rek yoruñu xeex bi ay sa il faut ñu gëm ni yow ci xeex bi nga bokk na koy xeexee bonal ko ci say émission yi ngay def bonal ko ci sa gox bi nga nekk bonal ko ci sa biir kër su paree nag soog a tasaaroo ci fépp parce que bu ko ñëpp taw jógoon wax wala ñëpp mu jaral leen ñu def marche boroom xam-xam yeeg ñu ñu ko tuddee ti imaam yeeg ustaas yi waaraate ci biir tele yeeg yooyu ñoom ñëpp bu leen jaraloon tey ñu dajaloo ne nañu xeex lii mu dañ fi waxuma ñuy génn di sànni xeer wala ñuy génn di toj. mais ñu def dajaloo benn groupe boo xamante ni dañuy dem ci kiñ jiite réew mi bu fekkee ni doxal réew mi moo ko intéressé ak moo ko yitteel ngir réew mi mën a jëm kanam te kenn mënta tabax réew te tabaxoo jikko jikko bu suuxee rek réew mu suux yi ngay gis yëpp jikko yu salte la moo tax Sénégal chaque matin et chaque soir boo xëyee yaa ngi dégg musiba musiba boobu li ko waral mooy yii ñu teg. yenn ci euh, musiba yi ñu bu ñu jógee ci ponk boobu mu di li ñu gis euh, fan yi jàpp nañ leen fii ci grande mosquée de Dakar mu di borom ñaari tur yi ba nga yëgee xibaar bu mel noonu ban. lan nan la la def. xam nga tamit léeg-léeg ni ñuy jàllalee message dana doy waar grande mosquée jàppuñu fa alentour dafa am alentour grande mosquée am jardin bu nekk foofu nga xamante ni fa la fa la nit ña di toog di féexloog yooyu grande mosquée ma nga ñu tëj kenn amu fa accès. jëf ji nag du ma ko du ko raay raayal. du ma ko sax maa ngi ñëw lan lañ mën a comprendre si si grande mosquée ak alentour. si biir la maa ngi ñëw dama ni la dama ni la ci gannaaw waaw bëgg comprendre maa ñëw foofu laay jëm. Uh-huh. ba ma daggee kañ du dem. xam nga dafa am lu ñuy tuddee grande mosquée am jardin bu nekk ci gannaaw ka dem ca jardin ba toog ca banc yi dafa def lu ñaaw kooku xoolal bu demoon ci alentouru Kaaba ga bëgg a def lu ñaaw da koy def duma leen cautionné dañ leen war a sanctionné ña leen gis bàyyi leen ñu dem ñooñu ñoo ñoo ñoo ñoo nekk ci erreur parce que am na loo xamante ni bu ko nit defee eh, ay sama waxal la benn mbir ngor kenn du fa sàcc ngor gii. sàcc du fa dugg wakaam sàcc du fa dugg ñoo ko fajal seen bopp. ci naka. ci naka merci dañ naan réewum yoon lañ yore mais dama ni droit bi nit ki am dafay commencer ci moom d'abord xam nga ngor dafa benn maa ngi dégg benn sàcc bu fa mës dugg ñaar ñett mais dañ ko jël. dagguñu loxo bi de dañu war a dagg loxo bi sax ci sariya sa sariya doxu fi mais dañ ko jël takk takk ko ay birig ci tànk yi yow tànk yow ba mu dëgër takk birig ci tànk yi takk birig ci bopp bi dugal ko ci gaal dawal ba ci biir sànni ko ci géej gi. loolu la lislaam santaane. mais lislaam santaanewul loolu mais dafa am loo xamante ni lislaam santaanewul rey de rey googu ak sàcc lislaam santaanewu ko damay préciser bu baax a baax pour ñi ñiy commentaire lislaam santaanewu ko buñ ni kii dafa méchant. xam nga li gën a méchant mooy lan di seetlu ñaaw di ko forcer nit ki di seetlu ñaaw di ko def mais sàcc amatu fa xawma ndax dund na wala dundaat na wala de waaye sàcc booy sàcc da nga xalaati dugg feneen fu dul foofu foofu laay waxee gis nga mbir mi billaahi laay gii laa nit ñi mën nañ ko fajal seen bopp mais nit ñi ñoo pareegul pour fajal ko seen bopp bis bu ñu paree pour fajal ko seen bopp dootoo fi gisati yi ngay yi ngay jàmbat tey ba tax nga invité. est-ce que nekkul parfois pression bi ñu bi bi parfois état di am wala pression bi ñeneen di am souvent on part du lobby yoo xamante ni jàpp na ñi ñooy teg pression ñi nga xam ni ñoom ñoo yor pouvoir de décision. waaw xam nga lobby lobby bu mu mënti doon teg pression président de la république wala état wala ministre wala lu mu mënti doon mooy li ma la wax rek yar bi daal ak corriger bi commencé ca gox ba. Aïssa def na lu mu war def. tey da nga xalaat foo koy yendoo wala foo koy fanaane mais du ci suñu gox duma la dóor waaye danañ la wax danañ la def loo xamante ni jëfin yoo xamante ni boo ëllëgee booy dem bay jouer loolu da nga ko xalaataat bu ko ñi dëkk ci seen koñ am na ñoo xamante ni taxaw nañ temm ne wax nañ ko fii euh, suma frère suma xarit nu ñu koy tuddee ti te nga invité ko fii euh, te muy faral di dem prison rek damay fàtte tur wi. Karim Karim Xuruxa wax na ko wax na ko mu leer góor jigéen bu rep ba ñu gis la ngay jëfandikoo yëfu góor jigéen bu soobee yàlla dootoo ko nettali ca yoof gee nga koy nettalee wala ngay nettalee ko feneen ci àll bu ñu la suuli bu ñëpp jàppoon loolu léegi mu jeex gis nga yi ñu naan ay lobby yeeg boo ko commencé ak dañ la fitnaal ak yu kenn xamul waa dañ lay rey ak dañu lay mais mais quand dee du doon ñaar dee benn dee rek lay doon te gis nga li gën a bon mooy di dund ci kaw suuf ba pare dee mooy jikko yu ñaaw yi ñuy jël samp ko fi ba mu am fi tànk suñuy njaboot ak njabootu keneen ku mënti doon di ci dundu ba ba ëllëg nattu bi yàlla wala punir bi yàlla wàcce ko boole ko ñëpp mais loolu moo gën a raw luy dee loolu moo gën a raw dee loolu lañ war a taxaw régler ko ñun ci suñu bopp comme que état day dégager responsabilité parce que day toppatoo ONG yi day toppatoo nu ñu koy tuddee ci yenn borom doole yi nga xamante ni ña nga ci bitim réew bëgg a taxaw mais nan ngay nekk bitim réew. bëgg a puus ay xale fii yoo xamante ni dañu bëgg sëgg ak di def lu bon sa njiitum réew taxaw fu mu taxaw di ndamoo lu baax di ko wane ci biti di cautionné lu bon ci biir loolu mënul nekk loolu xel daf ko mënta nangu xel mënu ko nangu loolu nit ñi nag man la la yonent bi waxoon rek laa gëm Aïcha gëw ma leneen mm-hmm. man raa minkum munkaran fal yughayyirhu waaw bi yadihi waaw loxoom rek force bi ñëw rek doole ji na ko wone bu baax a baax a baax góor jigéen bu ñu gis na dee na dee ba duutu ko defaat te bu dee buñ ko suuli yoof nañ ko suuli ca biti mais Sénégal euh, dafa mel ni mbir mi des na daal euh, wala gisoo loolu. des na maanaam combat bi li euh, liñ ci war a taxaw restriction yi ñu ci war a ut et tout ça parce que bu léegi booy xool sax danga naan dañu am liberté. parce que da ngay dox Aïcha wallaay combat bi combat bi desul de danga naan. mais est-ce que yow gisoo que ni xaw nañ am liberté bi nga xamante ne. Eh, peut-être déedéet amuñu liberté de. ñu ngi leen koy may de xam nga xam nga tey yow booy xëy tey yow booy xëy amuñu liberté de wala amuñu liberté tey booy xëy yaa ngi xëy sol si yére tabaarakallaahu macha allah dugg sa oto ndànk ñëw 2S mais nañu génn ñu manifester wu fii Sénégal fii dëkku diine. dëkku diine laa wax waxuma ak diine bu mënti doon nañu génn ñu manifesté wu bu ñu ñemee li ñuy wax rek ak bu ñu dëggalee seen bopp nañu génn rek ne ci Sénégal la ñu bokk def ko ni ko européen di def takk seen brassard wala ñu di génne seen drapeau yooyu wane ni ñun moom lañu su boobaa ñu xam ni réew mi dañoo jël état jiital ko pour mu regle réew mi mais jëluñuy état jiital ko pour muy sanctionner kii kii def njub di bàyyi ki nga xamante ni dafa def dëng nañu ko essayer. mbir moom amul négocier amul kii dafa tàng wala dafa am dafa soxor wala leneen déedéet du soxor ñoo ñu gën a yées ñu gën a soxor ñoom ñu fekk li nga xamante ni waxum bu ko yàlla terewul woon sax day yàqu askan li li li li demi problème di wax xale boobu mais moo ci nekk ah ana koo xamante ni yàlla dafa sàkk jigéen jox la ko ne la nii nga war a def ak moom ah xar yeeg nag yi da nga leen a gis ñuy xar xar mu góor ak xar mu xar mu góor di tëbonte ah da nga gis xar mu jigéen ak xar jigéen di sëy bàyyi ma yi amul xel sax defuñu ko yow nga taxaw ne lu bon lii danaa ko instauré lu bon lii danaa ko dëggal ah pour Afrique dund wala pays yi nekk Afrique pour Europe mën leen a dimbale foog ñu cautionné yi ah comme ni ko yenn président yi ko waxee jaar jaar fi wax waaw dangeen di cautionné ak ngóor jigéen wala boog li ñu leen doon dimbale dootul ñëw ban dimbal ndimbal na ca fekk loxol borom Sénégal li fi nekk ci koom-koom bu ñu ko jaarale woon ci yoon di ñaq di liggéey. kon du ñu séntu benn bitim réew mu ñuy imposer ay yu bonam di ko indi di ko teg di ko jaarale pour ñu mën a dund. Hmm. ay mondialisation ak yooyu yëpp gis nga askan wi ñoo ci dëppoo li askan wi dëppoo nag askan wi ñoo ci ànd bu ci askan wi àndee nag su boobaa lay am doole mais ñoom nañu génn wane ni lii lañ doon. génn ñu xëy na waaye. ah non non non mooy li la wax rek kon ñu ngi sant yàlla ci benn côté. parfois ñu la yàlla bu la yàlla doog kon ci hmm. benn côté ñu ngi sant yàlla ndax lu ñuy sant yàlla. nit ñiy xeex ñu ngi xeex te amuñu ci luñ ciy tiit amuñu ci lu luñ ciy ragal duñ ci dellu gannaaw ñoom daal bu ñu wóoloo seen bopp dëggal seen bopp nañu génn ci mbedd mi ne ay góor jigéen lañ. waaye parfois yenn sol yi xëy na du ñu déclaré wu waaye bu ñu soloo wala ñu wax rek nga xam ne euh, sori wuñ ko. waaw kooku ku mu soob nga nga nga ngelaju ku mu soob nga lamsal ku mu soob nga def mais mais dinaa la nettali benn boo xamante ne ndeysaan euh, dañ koy wax di reetaan waaye mooy li am dafa am ñu mel ñoom. Euh, dafa romb benn xew dafa romb benn xew lu reetaan lu la waaye reetaan taxuma jóg mais damay yeete rek mm. dafa romb benn xew xew yu xumb lool te muy góor laa wax góor laa wax de mu mu gis moroom mu góoram sama caam mi ñu fii lu fi xew mu ne ko nangam jaar fu bon góor jigéen yi xoolal ay sa xam nga nu def na mu doon rayee baat bi di di diital daf ni ko ah bon nga xam ni dafa am loo xamante ni mbéjum kanam borom moo koy fajal boppam keneen du ko fajal boppam fii lay fii sama càmmiñ sama ca ana góor ak taxaw naan sama càmmiñ sama càmmiñ fii lu fi xew mu ne ko ñef ndey nga baal ma góor jigéen yi nga baal ma ngeen baal ma ci kii parce que damay jàngale ñu ne ko ah xoolal ba mu waxee ñef loolu yu góor jigéen ca la changé baat ba ne ko ah bon kooku mais mooy li xew suñu réew du ñu dem xanaa boog beneen monde la ñuy doon ay deux mille soixante deux mille cinquante xaj na leen danañ fi fekk koo xamante ni peut-être mën na leen a nangu loolu wala ñoo xamante ni mën na leen nangu ñu baal ma de baal leen ma ci ci ci saaga yi parce que damay jàngale te damay wone loo xamante ni li mu bëgg a wax laa bëgg a dindi teggi ko teg ne leen ñoom li ñu bëgg du fi am mën nañ nag ci yenn sénégalais yi ak sénégalaises yi ñu gëmloo leen benn affaire moo lay may koppar nga jël gaal gi dem taxaw déclaré ni waaw dama doon solu góor jigéen dama nekk góor jigéen Sénégal ñu ñu xañ ma sama nekkin foofu xañ ma samay droit ñu may la kayit waaye niñ la may kayit mais adduna bi ay sa doo fi dund cinquante ans doo fi dund soixante ans doo fi dund cent ans tôt ou tard da nga hmm. dañuy daal di jeexalee politique xam naa ni waxtu bi euh, léegi mu jeex. Hmm. mais comme yow yaa ngi ci politique bi. waaw euh, politique bi jamono ji nan nga gisee euh, mbir mi entre opposants li ko dalee sax laay wax commençons remaniement bi. Hmm. opposants yi nga xam ni gis nañ ñu rejoindre camp majori majorité bi. est-ce que rafetlu nga loolu. man xam nga bëggatuma ñu may tuddal naan ma ay opposant sàngam bëggatuma ñu ma koy tuddal. waaw xam nga lu tax gis nga nit bu ngor jeexee ci yow dara jeexatul ci yow gis nga suñu mag ñi xam nga lu leen daan nawloo Aïcha du signature kàddu la al xurru xurrun maa lam yatakallam gor bu xasee àddu moomatul boppam te gis nga yii ñuy dox mooy li ngeen di wax rek ci affaire ngóor jigéen gi ñoo yem tàmmal suñu bopp fenn wàcc ba pare lekk ko léegi man loolu du ma bëgg sax ñu ma ciy poser question. nga ni bëggatoo dégg opposant non du waxuma opposant waxuma opposant ah yenn ci ay opposant yooyu ngay wax ni. ku ci mel ni dañoo dañoo dañoo dañoo dañoo kompolo dañoo doy bopp dañoo manquil seen bopp waaye ma waxal la ne la demal nga gëstu information bi ma lay jox à l'heure actuelle fii may wax ak yow. Hmm. ñoom ñu ngi koy gis dëggantaan parce que ku war ren ba déwén booba dañ la ko jiiñ. ñu ngi gis lan ñu ngi gis. la nga xamante ni mooy meññitam wor fii may wax ak yow ku ko ci mënti def ci ñoom ñu ngi gis meññitam wor te ki ci gën a siiw dama nga gëstu ay mbiram fi mu ne nii mu ngi ci ay problème yoo xamante ni kenn xamul lu mu demee. Idrissa Seck. non du ma tudd tur. ah mais dañuy waxtaan ci wàllu opposant yi dañu bëri tam boo waxee ñeneen ñi mën nañ ci gis seen bopp c'est pas euh, imaam nga baal ma rek bëgguñu ki ci gën a fees waaw bëgguñu na borom xel c'est-à-dire bëgguñu créer confusion mhm. ci bopp téléspectateurs yi dañuy bëgg tout le temps muy leer c'est pas pour créer confusion confusion wala indi coow non parce que boo nee ay opposant opposant yi bëri nañ ñi rejoindre euh, camp Macky yi na dama ne la dama ne la ki ci gën siiw laa la wax nañu seeti. jamono kon ma bàyyi téléspectateur yi ñu ñu ci gën a siiw nañu seeti jamono yii naka la nekke ak nan la mel gis nga wor jigul bant bay jig nit te nit ki nu mu mënti doon ayisa ñu bàyyi xel ne kàddu mag ñi dañ ko respecté woon xam nga dafa am lu ma benn kilifa di wax dama booy dem ci média na ngay moytandiku di tudd tur parce que tudd tur dafa bokk ci tooñ waaye wax mu egg dafa ko moom gis nga ngor bu jeexee ci nit dara desetu fa te am na loo xamante ni ñàkk ngor la ñàkk personnalité la ñàkk ngëm-ngëm la loolu nag li ma ci métti ba may waxee nii. mooy ni suñuy njaboot ñi nar a ñëw ëllëg ñu ngi koy bëgg a donn ci ñoom. ay sa est-ce que gëm nga ni Sénégal fi mu ne nii léegi li nga xamante ni moom la ñennat ñennat ci autorités yi bëgg a instauré mooy. fen tey toog ci say fen yu tooy xëpp bëgg a dëggal say fen yooyu loolu de amu fi woon ci suñu jamonoy maam yi loolu de amu fi woon ci jamonoy Senghor loolu de amu fi woon ci jamonoy Abdou Diouf kon war nañu seetaat suñu bopp ñun ñun ñooy ñan ak ñi nga xamante ni ñooy ñëw tey ñu bañ naan bañ naan léegi lu toll ne vaar dañ koy génne soo defee tey ñu ne la suba ñu tegal la vaar gis nga. Hmm. ku lëlu di jooy. moo xam la muy jooy waaye nag dinaa lay jox benn waxu wolof fu ndox daan taa ba lépp boo dem ba léegi boo demee fekk fa tepp-tepp am na ñoo xamante ni mara naan du leen taxa naan potit mukk ndax bu ndox feeñee ñu rus ñiy opposé ñu ngi opposé ñii xeex ñu ngi xeex te danañu sax ci xeex boobu ba li ñu bëgg insha allahu taala muy defar jikko yi li ñu defar jikko yi nag boo ko déggee mooy lépp nag mooy lépp bàyyiwuma dara tafuma ko rek ci film yeeg yooyu sàcc alalu askan wi yàq seeni jikko di di not kii di bàyyi kii di yëkkati kii di suufeel kii tegoo lenn sa bët lu dul poñaxitu àdduna ak nguuru àdduna waaye dinaa rappeler bu baax a baax Firawna Firawna Aïcha mm-hmm. dafa am benn njaboot goo xamante ni moo nekkoon ci suufam na nekk ci àdduna rek yaakaar ni moom bu yàlla doon wàcc asamaan sax dana ko taaw ci loxoom lu ko neex loi bu nekk mu tëral lu ko neex mu def mais menn Moussa mu judd nekk sëtam yàlla womat ko ba mu dugg ci biir paleem def ko lam koy def te lam koy def du lu ñuy wax fii lu ñëpp jàng la lu ñëpp xam la ku nekk nag kuy jiite ak foo mënti jiite war nga jàng histoire boobu nga xam ko. ñu lay jaajëfal bu baax di la bàyyi nga tàggoo. waaw li ñuy tàggatoo mooy euh, taxaw temm rek ñu gën a defar jikko yi gën a yi ci bépp anam. sàmm suñuy kàddu surtout sàmm suñuy jëf ndax ëllëg bokk na ci li ñu yàlla di laaj ëllëg bokk na ci li ñu yàlla di laaj ki gëmul yàlla nag wala gëmul yonent bi gëmul boppam gëmul réewam lu ko neex na def mm. lii may wax nag fa man shaa fal yu'min wa man shaa fal yakfur ku mu neex nga gëm ku mu neex nga taxaw fële saaga wala nga weddi mais lii mooy li nekk nañu sàmm ngor yi sàmm suñu kàddu mag ñi kàddu lañ daan rawe mhm. ay sa sa maam bu mosaan a wax ba signé ba ba ci parolam si fini keneen doo ko dootu ko ci mën a dindi maa ngi maa ngi tamit ñaax xale yi nga xamante ni ñu ngi eh, ñu ngi ñu ngi dugg ci eh, nuñ ko tuddeeti eh, wàllu film yi tax nga may woo mhm. léeg-léeg nga gis ñuy def ñuy def casting casting bi nga gis fañ koy defee foofu fees dell dell dell ba da tiit mais maa ngi leen di delloo siwaat ne leen lañ leen di defloo casting nañ ko seet ba xam lu ciy njariñal askan wi d'abord balaa sa njariñal bopp wala poñaxit hmm. yañ la cee jox. ñu lay jaajëfal bu baax a baax mu nekkoon imaam xalifa euh, Ababacar Ndiaye euh, ñu doon waxtaanee moom lépp li nga xam ne mu ngi jëm ci wàllum euh, li ñu gis jamono ji ci série yi télévision yi ak it laal nañ politique dégg ngeen ci kàddoom ci li mu ci indi loolu moo nekkoon tey seen émission matin bonheur gannaaw ñu fi dalalee ci pàcc bu njëkk bi Djibi nekk ci association des handicapés ya féetee fële ca Pikine tey ñu daal di leen di rek jaaree noonu nuyu remercier leen téléspectateurs yi doon ñu suivre depuis ce matin internautes yi aussi euh, Facebook Instagram euh, YouTube également ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax seen teewlu auditeur bu 88 point euh, Origine FM di leen di jaajëfal bu baax di leen jox rendez-vous demain incha allah ci beneen numéro bu matin bonheur passez une agréable journée.